الخليفة We are not here to make history. We are here to make history. We say the history. We are one of the biggest parties. Khalifa was the only man who was seen in Gambia. Everybody was Salah! Salah! يا جماعة حاجة صلى الله عليه وسلم kita ini tadi online system change kubanyakan kita orang ini system change bangga dan kita pelakir system change bangga dan pelakir Campeão, viado! Ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gambia uh, a promotion talents ni jibe kan frente be main airport wala bunda nyin to pour ka dum inside the uh, airport nyin ko kata ka futa a uh, halifa nyanta jila dami ah, woto a nyine be kering drong ka berem botonale PDIS ila headquarters store party supportal anen mini alon ko ay halifa sala kanuntel e wela motol kono al nyalbe wala la teng be dum kan airport wala main entrance le once again uh, for those of you people who are watching uh, Gambia Promotion Talents. You are welcome here at the Banjul International Airport. Uh, from the headquarters of the PDIS, uh, we are now entering the main gate of the Banjul International Airport. Mm-hmm. There are team and the supporters of AP, I'm, I'm sorry, uh, crowded in their hundreds and thousands, you know, in their vehicles, you know, and then uh, uh, going to the main airport too. I'm ah, mbokk yi yéen mi nekk di seetaan ah, Gambia promotion talents. i talent ah, fu mu nekk nii ñu ngi dugg si from the airport bi li ngeen gis nii mooy supporters yi ñoo xam ne boot nañ moto bi depuis The headquarters pour dem àgga si airport bi pour teeru Halifa Sallah kon lii moo nekk di xew fii nii buñ jógee si main headquarters of PDOIS ñu ngi nii fii di dugg ci airport bi kon lii mooy ambiance bi boo xam ne ah, ah, supporters ci PDOIS ah, moto yi ngeen a gis nii yooyu ñooy moto yi yoo xam ne ñu ngi ëpp fans yi ñu ngi ëpp ëpp supporters yi ñoo xam ne ñu ngi support PDOIS kon lii moo nekk di xew.

Wow. System must change. System must change. System must change. Regime has changed, but the system hasn't changed yet. System must change. Uh, now, Let them, let them. Yeah. bi comme niñ ko gis ngeen ko affaire ngi ngi ngi liggéey system change gis ngeen ko You want the system to be changed. Aja aja aja jemle jemle. Kalau itu mah macam tu. Jemle. Kau ni yang kau. tombé ñaan ko wax si nañ fi seen ko fi mu nekk nii gis ngeen ko go, back on You saved this country. Now you can take it credit. You saved this country. airport ba egsi nañ si airport bi gis ngeen ñëppa gaayang fee ñëppa ko tertu ñëppa ñëw xale mag ndaw ñëppam fi xale mag ndaw ñëpp Bele porte la nda ko to. Xale mag ndaw ñu fam fi gis ngeen fele sabakel ñoo fa nekk gis ngeen ko Group Hades yëpp a ñëw welcome fifties Let's go. Let's go, let's go. bro nakam maa ngi nii rek. yaa ngi ok. yeah yeah sant yàlla bu baax gis nañ ne yaa ngi happy. yeah yeah am lanaay seen teewaay tey fii. because dañ ñëw jël si suñ leader bi Halifa Sallah oncle Halifa. Mm-hmm. because am na time. Mm-hmm. moom rek moo fi nekk ñun yut si yëpp moom lañ doon déglu. Mm-hmm. dëkk bi yëpp moom lañ doon déglu. ñëpp a daw. bàyyi ko fi mu réglé dëkk bi bal taaxut. dara taaxut wax ñun si njëkk ak teranga. waaw because ñun mooy suñu royukaay. ñun yut si mooy suñu royukaay hmm. moo tax ñu lifin ko sagal ko képp ko wax dara wax ñun nga ko wax ñun yut si waaw Halifa moo ñu fi nekkal Halifa génnaam bi coow li bari na lool bi ko coow yi foo mu bari foo bari lu coow li war a bali dëgg rek nit dëgg la nit dëgg la kon dëgg la kay li ko wax waaye ah, gis nañ ne yaa si kaw moto bi yaa ngi wax ne we need a system change. yeah yeah not regime change but a change. because dafa oko waaye léegi system change. government bi change na waaye system bi change. Hmm. yeah lan moo change si system bi. lu fi nekkoon rek moo fi nekk. si national assurance bi bu nekk lu fi nekkoon moo fi nekk waaw. ok ah, waaw Alhaji ah, comme.

ji ba mu yàfu nu ñaamen dorong soo gisee si gannaaw ñu stopoon am ñu stop vidéo bi because moto yi nekkuñu woon together gaa yaa ngi doon laajte ndax lu tax ñu stop vidéo bi moto yi ñoo nekkutoon together loolu taxoon ñu stop vidéo bi waaye lépp lu fee rek incha allah dinañ nekk soo ne ñu taraay ñu génnee leen ko rek ambiance bi bari na lool Ramatulaay ko waxee loolu la boo gisee ñu stoppoon ah, hmm. a ah, mu doon tegoo fii daa was no proper arrangement understand te amuñ spécial véhicule foo xam ne mun ngaa taxaw nga su waaye ah, yëpp benn la comme ko àgg nañ fii nii ah, dinañ continuer rek di leen won ah, fii nii lépp loo xam ne mu ngi xew fii nii fu mu nekk nii àgg nañ fii si main terminal bi. waaw Alaaji gis nañ fi sécurité bi doy. bu ñëwee gis nañ fi sécurité bi yow a ngi taxaw. am dafa mel ni kon fii dara du fi yëngu. waaw waaw sécurité ñu ngi taxaw ñii nii ñu ngeen di xool nii ñooy économique yi ñoo xam ne ñoo ngi fii nii des Nigérians soo xoolee seen page si des Nigérians. ñoom ñoo nekk fii si airport bi waaye despite fii fu mu nekk nii soppota si foog naa e ne mun nañoo jël ambiance bii nii soppota si ñu ngee daal ñu ngee lifiñ so kon lii moo doon loo xam ne mu xew ñëw xam ne dafa dem waaw yemi fodoram komi afo jora ko mo ah yes ya

di garden an di you know kuma jamal wulindi na nyin na change change eh. change ah, lebe fering a ah, bantu tala kota ya ko jak wonon paadi gol fakan dron wala ko a taxawaay si I waaye. dama maa leen taxawaay si biir waaye bu ma nekk age of 18 years In maa ngi biir waaye that time I don't even have a voting power. Oh. We are the uh, we are the youth you know youth that time a youth population in the biir waaye age of 19 you know 92 that I don't even have a voting power I, I was in biir waaye. Okay. Now together with the mass and other few people like Silas and other people other people so we are the founding father youth founding father for the biir waaye. su ma tegoo ay vidéo yi kay moom mën na ko wax. alaaji alaaji alaaji ko waxtaanal ak kii. waaw waaw jërëjëf mbokk ak noonu. Alpha la ak Alpha naka. Alpha yow tamit da nga ñëw fii tey bu fekkee tey moom Aliou Moussa la. tey mu ngi war a ñëw. ah yow tey lan nga yëg sa yaram soo wax du bari daal waaye ku xool jotaay bu fi ñëw rek tey ku na loolu waxal na boppam daal parce que képp koo xam ne xam nga xale fa bu baax a baax Gambians war nañ koo fay daal soo te ni ñu ko mën a fayee rek mooy at times ñu génn ku moo tax mu yëg ne am na ñoo xam ne ñu si gannaawam fu na loolu am solo la soo bés ni tey xam naa su gisee ñu koy xaar si airport xam naa yëgul ko def ko rek ko xam ne Gambians si ñu si gannaawam because am na lu bari loo xam ne defal ñu si réew mi fii loo xam ne dëgg-dëgg war nañ koo fay parce que on the 18 ak on the 19 January ku nekk su la cee sa bopp jamono boobu foo nekkoon foo naa loolu bés boo xam ne dafa nekk ko bu baax a baax foo bés boobu bés on la xale fa foo xam ne war na si si Gambia fii moom rek rek lii da boo xam ne si Gambia fii léegi dañoo baataam te mel nañu yaakaar te ñeme nañu soo foog naa bés bi ki tey moom tamit war nañoo feeñ woon ko ne dégg nga dégg nga Gambia si yëpp jërëjëf Boka. waaw mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek ba léegi yéen yes kii joolaa laa kii non waaw waaw ñaam kare sa buuma bu kare som ka safa sa bom joob jo ka jaa wala bu ko je ba be ni a jaa ka wara a jaa ti no a wanu ba je bere ko gamel jaa wani ba je bere ko gamel wa fa jube bar ko mi sango ba ndi nje rew di fugo mom bayri ni ju kalifa na katom waten watenuma ñum a président ala kontat nana balangum na jot fe jaw kana ke gam yaw jaa jaat butu bu futi kam mañu futi kam alifa jume ma u ja a nome fanga fola nane la ko mañu jikoroli na wateri um kure no ba fa ko a jo kontane jila jep jep kana kanum ye kontanelo tejo ja ko kan ko ko ta da ko ma ku yo ko nyaay ona ka no ko ku no nyaa bare jaat ku ñu pel halifa jaat you know because ko kila ko ko ko ko bare halifa sa jaat ka kala ana ma o jaat na ñu jabo ko kala ku ya ku ñu ko halifa jaat ala che ana mu bi no am ba je ka ñu ñu ku be ka gambe be wala e ba tara yam da ko ko te ne wala gen wala ko mo bari oh, gata eh. mira ki so ne ne fo mi ki wana no la système li ja système gambia ku men na ba ku la ka gambia tu le si le an par ko ne gambia wala tu mu re mu kana ko na yo ali ba ko par na bu ku jalan ku la ko wana wala ah de

la on da jilingai mom da kila wa fa tilimutum kam don ni manyo be jat alifa mota jowo alifa wona manyo wono aji kuja anaw ko ja problème nane aw mu wo be on ma no be wala ma rambe mu kan an na mu kan ko pale mu kan ko to sanu la ke kara du press be ni kara ko mangi alifa wono ma kila alifa ana no manje so se sa na manje ko tama be wa do wa ni kan na kan an ko kan an do apa kabar bang Apa, apa Uh, face of the impasse you know a reminder honestly gentleman what is your name okay what's your name again uh, we're here at the to wait for the arrival of after having a successful tour you know uh, in like the UK how do you feel today I feel very honored I feel very happy and I feel like I am here to welcome the hero who has contributed to this building and who is still contributing and who is who went to Because Khalifa's visit will I mean, has sparked a lot of controversy in this country. You know, with regards to certain comments that, you know, I mean, uh, Khalifa said, that the Gambian needs a system change, not only a regime change. What is your whole question about that? Yes. He is very right in saying that there is regime change. The, all the government is one government is changed, and another government is around. But the way the institutions were on still did not change, so it means there is no system change. and we need system change. We need the institutions to be given the power to counsel themselves, not individuals making decisions for institutions. Institutions need to run the country, but not individuals. Yeah, not individuals, like yes. you said, and yes. the institutions I mean, needs to go to the But I mean, as a youth also, I mean, do you think that Halifa also have plans for the use of this country? Yes, he has a lot of plans for the use. Yes. Like when you look, when you know the Doi agenda, the Doi agenda is specifically for youths. Are you getting it. Every every country have to rely on your youth for development. If you rely on other people other than the youth, the day, it will not pay dividend. If you look at this government, if you look at all the senior positions that are given, have you seen a youth there? It's only called for the youth also to be given the opportunity so that the knowledge and the skills that is in them, so that they will, they will, they will, they will practice and impact in the society. So the youth need to be considered in everything. Yes. So the youth has a greater, I mean, a share. Yes, they should have a greater share. They should have a greater share. Thank you very much for your

képp koo xam ne Gambian nga waaw jaawee kon di nga gis ne waaw ok kii moom tamit dégg na njaago ba léegi waaw waaw rek nga leeral ñu bopp waaw ko si jago. waaw si njaago ko takala bay dinyi ba njaago ya ci de ci ci da ci airport gambia di ka jagare gambia international airport da biri wek di ka jagare halifa sala bayri pati doy pati doy ci pati ada tubuka ada turasa da nyaga jaaɓiteɗe ko ɗogoyi ɗo ɓeɗe ɓura sawi ɓeɗe jokkude ɓeɗe jaɓude ɓeɗe tata yi kaɓe ñaama leydi ɗo ɗoyi ɗo ina daraw nanere pour pour gaaɓe yaɓe ɗiɓe ñaama ɗon ɗe ɗum ɗo kamɓe nowleni mos ɓayde ɗi ɓari wi election euh, ɓaandu ka win toy bo koyim toy kalen tan jalingo bilimo kin classe euh, ko toyin kapo kare ɓay ɗi jaɓa jakko mawlidin mbos alifa sala royo bago ɗo england anan fom ten tare no lomu ɓeeriw pour jaɓa jagambia mais koyna jay cuum pour baña gambia ɓayi clear ɓe ɓe jibañamalolon après nga jël système téye bu téye pour def léegi naka léegi ak léegi nga am rek ñaar lu bus bayre bu ba ak ci ID card loolu ak ci bonus card Gambia Gambia di Gambia one ka one Gambia one nation one people Gambia di loole ku taak loole mo ñaama loole Okay, thank you very much, Ramatulai. You dig lagi. loolu am na solo. waaw lépp rek waaye dégg naa tamit mu ngi wane one Gambia one people mu ngi wax si ne seen taxawaay fii mooy. ñu ñëw rek seen njiit bi di Halifa Sallah balaa ñu ko fii wax kay foofu nekk. waaw fii nii kay moom Ramatulaye fii naa kay moom fi Gambia ñun ñëpp benn lañ you know dafa mel ni rek Halifa Sallah doon la koo xam ne Gambia si dañ ko bugg a si xol maanaam ah, borom ah, day jafe pour nit ku fee ko hmm. ah, te dëgg la you know lu ñoo dégg yeneen fan si fii nii sapota si ñuy wax hmm. ñu ne Gambia dafa ni ne système change te foog naa ne ñun mi nekk journaliste yi sax lii lañ seetlu si benn son document bi kon lii nii

keɓa drame keɓa drame felente saji sata e amour kabilo kota joyla o joɗo nde seedi jam pour que haali fala namile kota a eɓen molde feyalo ko emi rappido as a nomala wi ite muna je ñim molmin fitnaa karaka haali Thank you.

I have one shadow there, I know no shadow. I I work in a fellowship. I know I must see I must see you nka. I must say last year tan sign. Mo mo ni tada la officer do. Ite mo man ni kodi ba. Mo dola di mo sa ko di mo ko di ba. Ila ha ni ila ila ila sa ja ka lon do le doku. Aye ma ko ala lon do. Ko ko ni ba ke ma ko ala lon do la. Ko ni fan ha ji ja. Ko ko ko ko ala hakuwa sakuna kama sakuna kirisa sakuna jero ye ma sakuna kirisa ye ma sakuna makwe ko sa ko ke je sola je me alon ko ma sakuna mo ko ni baye ma sakuna ko so mi ya ne ni te yesu la so wala ke ni ba ta ko sakuna kirisa ta ko te mo so ni ta mi la ko ta ma be me ko la mala sa ta ko so ni je at ma be

que ni ko président o a ah, ramatulaye a ah, o keta kultimiyala ko office olem office o tolem président oti o mhm. ɓare mool kanala kata woto ni yajame ya tata a ah, se ke kultimiyalo ko yoamena mhm. systéme o ni aɗa ñantale kam falle ha mhm. alaji ya fo ñamen dorong wo il faut que ya fo ñamen dorong il We are on we are wiya molɓe halifa sala battu kan halifa sala kana Alifa sala kana dorong so alaji mol yeta bendung re mol kata bendun ne dorong alaji sen mol yeta je because so mol kata bendun ne dorong ya jele alaji kuol kuol kata kenya nyame sen Uh, walem a rabatullah uh, fansol wolbe loring e fangolye mm -hmm. wow gambia ah, kan promotion kuuɗe kam wala ñinti ko kañi yakaro sotolo ko ah, nin halifa salla a jiita e yako to to mhm. anin journaliste ol eɓe katañin sotla ah, ka kuwol dol jiiɓe min mhm. alon ko wollen kumolte min wulita num kabirin halifa tata num european tola par ce que jama baale ñine fo ko halifa salla mumolti mi alon ko ate fanan a mumolti mhm. mi alon ko e tolle coalition o ñin foom kono atama ñanna kela moti min ñanta ka coalition o ñin jala waw alaji comme yaaf ñameng dorong Halifa Sallah dafa nekk ni ku nga xamante ne comme ni ko gars yi waxee ñoom gaayam yi génn si nañ fi mu nekk nii alaaji ñu ngi si airport bi. waaw foog naa plane baa ngi ñëw laan supporté yi ñoom ñu ngi si gannaaw waaye ñun ñu ngi dugg si si biir eh, airport bi. pour dem tertu ji Xalifa Sall rek nga gis ne bala moo génn ba di dem ci mbooloo mi dinañ mën a waxtaan ak moom ay kàddu alaaj waaw loolu la ramatulaay comme nuñ ko waxee woon naa ah, nuñ hmm. di woon nit ñi rek mooy ne Xalifa hmm. ah, Sall am nañ yaakaar ne ah, bu wàccee si airport bi dina hmm. wax a journaliste yi bu ko defee mu mun a leeral yeneen kàddu yi yoo xam ne waaw yooyu ñoo yooyu la nit ñi ekkati yoon parce que ñu ne Xalifa Sall mu ne Gambia dañ need a system change eh, lii nii na loo xam ne sa hmm. euh, nguuri Gambia tontu nañ euh, ñu doon xoolaan euh, hmm. a ah, waaw ekkati nañ ay kaddu di tontu kaddu waaw di nga ña Halifa Sallah si kaddoom yoo nga xamante ne ñu ne moo ko wax itayo ko a ah, no wolem kuutimi yaalon ko yaalon a ah, molɓe min fokan wala ñinti ko a ngamana pleno ñing waaw alaaji Uh, uh, uh, i think it's a pretty flight so na ni yakaro ko ala aeroplane bare mm -hmm. komi aramatulay ñinin karo min podrong uh, uh -huh. because uh, masakunda fo is a strong institutional soto anin strong people ol min yalon ko wol fana ñanta ka masakunda criticize mm -hmm. because nin ko démocratie uh -huh. you know amu kulti mi yalon ko mobele dabi je wow, you, know, so na be laari ngoñama fanan uh, nin khalifa e kumo do fo komin ka fo ko masakunda an fo sañi institutional man change system o man change mm -hmm. uh, uh, ñinem démocratie ti uh, gambian ol ye changes min vote ko hmm. mo be ñanta ka lodula soto ka hmm. kumo fo miyalon ko wala mi tefanalla opinion o ti ramata wawa alaji loolu nekka li nga xamante ne lu ama li ama am solo la comme ni nga ko waxee parce que suñ ne man Sakunda comme ñu ne démocratie démocratie nekk na li nga xamante ne ku nekk war ngaa mun a wane sa gis-gis si réew mi war nga joxe sa cadeau ak sa xalaat lolu amna solo loolu alaaji nga bamtu ko rek wax ko ci jola sa mbokki joolaay tamit dégg lolu comme ni nga ko de waxe rek am nga ha yalla ah, ah, na la yalla may ah, wér bi yaram amin ya rabbi ah bu kanam bu kanam la di jaral ya ya tale ci ko so na man rek ko non hmm. ko ke ba baju ni la ta ya ko de ko khalifa sala ni na jori ko ko mo bo boka mik di ga jenu mo ko wa ko do play na yoy meri no tomos

ken kamantere de mokamene gambia ko kamɓe sa masa ko laati gambia ko pop ɗuway kurem kanku laŋanede kurema kan halifa salarem wokkata no rego meti jaat ko ɓolu jukja ko jolore sa ko no bil ɓe maat halifa e bile yola pour ɓe jam mankan halifa paŋol nafseten bukana kene gambia manta vraiment fo faregem aclarege ɓa manta clarego ɗi pop waw kate pop na rego kono ɓolu tu wahwa manjamoy kamom kaji kera gambia talent promotion ɓolu hmm. isen tu manotan mayem ɗum e jayeno baɓedi e apporté waaw alaaji xama jërëjëf naka lañ ko de waaye si jooy émité kat waaw ye mi ngo fe eh, ye ko ko kuma yaate bakele comme mbaɗugol nga fale ñamen drong albe gambien talent le jibe kang talent promotion comme mol kake ñamen drong kuwo ku mais ye banko nafa drong bal itandi ne mo kay wax na le ñun askan bi mo ñu ñor te askan bi mom lañuy bégal comme niñ leen ko waxé rek waxon nañ leen ñu commencé ko si office bi alaaji ñu commencé ko si office bi ba si port bi topa gaay and ak fan si fi nekk ni yaram yaangi tanga ñom ñep seen yaram ngi tanga xappi waaw dafa mel ni rek Ramatulaay sécurité yi tamit ñu ngi def seen liggéey. comme ni waxoon de sécurité yaa ngi def seen liggéey waaw ñu ngi arañ fan si yëpp. waaw ñu mun a taxaw di xaar xalifa am nañ yaakaar ne dina génn si bunta bi. Hmm. waaw so am nañ yaakaar boobu noonu ñun ñu ngi taxaw fi di xaar nañ seet na mhm. security dinañu mëna ala ñu mëna a ci biir bu ko defee khalifa sallam bu wàccee rek dina mëna am waxtaan ak journaliste yi waaye Ramatulaay benn moto mu ngi ni mu ngi dugg xam nga comme lima waxon rek last time Mama kande bu fi ñëw man na fi ni nii bobu tamé mënu mënuñoo am access tamé pour mëna am interview ak Mama kande so gis na moto bu ndaw bi ni tamé xawma ma bobu moy mooy ci biir mu jëli waaw waaw oto bi mooy dugga si biir pour jëli Halifa loolu la gars yi wax waaye gars yi leeralal ñu ne ni gars yi su ñëwee dinañu may accès ñu waxtaan ak Halifa Sallah gars yi may nañu accès boobu noonu soo moto bi nag moom mooy jël si Halifa waaye xam naa ne this time du ñu def comme last time bi mu ñu gaa yi defoon si Mama Kandeh Alaaji waaw loolu la xam naa ne am nañ yaakaar parce que ah, Halifa sala moom dafa nekk koo xam ne dafa fonka ah, media trop te xam naa ne ah, gis naa fii nii suma mbokki journaliste yi ñoo xam ne ñëpp ñëw nañ tamit pour xaar ndax Halifa Sallah dinañu grand interview hmm. te yaakaar naa ne Halifa Sallah dinañu grand interview bu ko defee mu leeral yeneen cadre yoo xam ne yooyu la nit ñi ekati yoon hmm. parce que Halifa sala si boppam dafa mel ni rek dibéet bu nekkoon di dem ñun buñ doon am suñu programme bi mooy ne hmm. ñeneen ñi ñu ngi doon wax ne Halifa Sallah dafa waroon a nekk koo xam ne dafa waroon a nangu mu jël place bi. ñeneen hmm. ñi ñu ne Halifa Sallah parce que man sax sama hmm. léegi ndax leeral na Gambian si lu tax moom you know a liggéey ak coalition. waaw mu ngi ko doon wax ne nguur gi nguuri jàppandal la alaaji nguuri jàppandal nag soo ko déggee si olof mooy nguuri jàppal ma jàppala soo coalition la nguur comme dafa mel ni ñëpp a ko bokka te moom dafa bëgg a taxawal réewam mu ne comme ni mu ko waxee moo tax bëgg a kaddu ci askan bi bu nga am ci réew mi moo tax mu taxaw député nekk ci national assembly bi alaaji waaw ba léegi saa loolu ñu ne nii dañ ko gisee leneen hmm. ne Halifa Sallah waroon naa mun a jël ministériel poste rather than mu nekk you a national assembly member parce que ñoom dañ gis ne Halifa Sallah sa amba during the campaign trail uh, ramatulay mm -hmm. ale fasara mo do leral gambian fe si walum economic bi mm -hmm. you know si walum economic bi uh, mm -hmm. ak tet bo xamne uh, gambia ñu ko face mm -hmm. uh, khalifa sala nek na ko xamne uh, bu fi waxe waxe rek nit ñi dañ ko mm-hmm. day deglu mom mm -hmm. mo nekkat nit ko xamne day leral sa yu nek gambian si be ñeneen am yaakar sa pour mëna sanin coalition government mm -hmm. waye kon be legi gis nañ ñun mi nek fi gambia division bi mu ngi fini mm -hmm. parce que khalifa sala a uh, bu mu jëlut place bi rek dafa mel ni léegi moom ah, bokkul si coalition government comme li ma ko waxoon rek ah, ah, Halifa Sallah bu mu waxee kàddu yooyu noonu ñun mi xam ne journalistes yi ñu ngi doon wax ne Gambia government bu ñu doon respond to Halifa Sallah dañ waral parce que Foroyaa newspaper ñoo ñoo binda ne Halifa Sallah mu ne Gambian si dañ def régime change hmm. waaye système bi change ut hmm. waaye instead of government bi lu ñu def mooy ne ñoom you know amenda dañ respond to Halifa Sallah waaw plan baa ngi noonu fileen bi waaw dafa tegoo dafa tegoo ah, luñ doon wax mooy ne ah, nguuri Gambia buñ doon tontu Halifa Sallah comme Foroyaa newspaper ñoo bindoon kàddu yooyu noonu dañu waroon a send the same you know press release to Foroyaa parce que that is the ethics of journalism hmm. as a rejoinder mi hmm. xam ne ah, a Foroyaa ñooy delluwaat again tamit hmm. binda lu Gambia government tontu kon waaye Gambia government tamit using GRTS as a medium a state national medium pour tontu Halifa Sallah loolu nekk na loo xam ne tamit àndut si démocratie ñun journalistes yi wax nañ ne loolu is not the ethics of journalism they should have like I said you know they should have sent a rejoinder to Foroyaa for them also to publish the same story. But rather than Gambia government responding uh, to some of uh, the things that people say that Halifa said. Well, but like we said, Ramatulai, mm. I hmm. think we, if Halifa comes, he will speak to journalists. Yes. And he will try to... Alhaji, am naa yaakaar ne Halifa dina waxtaan ak journalist yi. te biñ ko waxee tamit gars yi loolu la ñu wax jox nañ ñu yaakaar bu baax a baax ne Halifa dina waxtaan ak journalist yi. parce que Halifa du daw journalist yi parce que dafa yaakamtee tontu fu mu nekk nii. waaw soo fa mu waxtaan ak journalist yi. am naa yaakaar waaye xam nga ñu doon wax waxtaan ak benn waa ji. waaw ne mun naa nekk sa xalifa sax xamut ne sax nit ñi dañ koo ñëw teer te xam nga buñ dooroon programme bi fële si headquarters bi laajte na nit ñi ndax lii mooy di first time you know xalifa Sallah su tukkiyee mu ñëw nit ñi ñëw teeru ko ñu ne lii nekkul first time. waaw waaye foog naa ne bii tamit it's going to be the first of its kind. waaw kon ba léegi rek. because alaaji ñi indi nañ naka indi nañ 56. waaw moto lañ indi. te gis naa yeneen moto yi tamit ñoo xam ne mais bii mun naa nekk ñooñu. waaw xam ne am na fu ñu jógee. waaw ñooñu nit yaa ngi jógee alaaji comme ni ñu ko waxee woon rek bu njëkk si njëlbeen am na ñu jógee ko bay wulli am na ñu nga xamante ne ñu ngi jógee ko bay ay base ñëpp ñëw rek pour tartuti Halifa Sallah mu wan la ne Gambia bi ñëpp a bokka ñëpp benn lañ ñëpp Ramatoulaye sa lee naa la lu ñu waxoon rek ah, boo xoolee tey fii nit ñu fi nekk populé les seen half of the ah, ah, nit ñi ñu fi nekk they are all youth te hmm. PDOIS du parti bu tey parti hmm. boo xam ne yàgg na fii Gambia hmm. kon da ngay gis ne youth yi dafa mel ni kon Halifa Sallah information yu mu di wan Gambian fi youth yi ñu ngi ko dégg parce que soo xoolee fii youth yi ñoo gën a bari waaye dama ñëw si suma mbokki soosey rek waaw rek ole ɓe teng sañen ɓe bandiwol ha itatako e yako albañin molmin jiɓe kam walla sagoda sote politolle aray ka looku ka haɗi fa sallala namin bat pleno ɗoɓe janne min jiɗare ka yakaro soto fate keno ko halifa salañin jeeno bara komin ɓe min fokan dron halifalañin tamo a nata diyam jamale sambara fatata ko galle gofo men ino iɗon fanan nata halifa jaabi tuka jiyate jiwi bara komin journaliste ol min ɓe jimbankoto gañene foko womanke éthique of journalisme ɗi o foroya iɗon ne saferoke ka yitandiroke ko haalema ko manta ko ndaale falinta wara systéme o ñing atema falin woto naaɓe laariŋo ñaama neata commune ko gambia masakunda lafta ka halifa sala jabi e ñanta taro taroñin samba foroya newspaper se rejointa wala ñanda ka ke su ko defee foroya ito la ñanda ka murun ka o di same story ñu publish pour ka pool ñu leeralin bare a ah, man ni kol kamin fodrong iko cokore aka dia wolole da kono mm. woto khalifa alaji mu ne wodi ha ah, wala di ko ya mo ñi ana mana son yala ya mo amari toñi fa da kono mm. woto wala be kering jang ramatula ni yakara soro ko ni khalifa jita tumando ambe ka rol ñi kelale ka ni ka alaji foglo nga ñu waxtana la ki rek mo mu na am dina am kaddu yu ci sanni nga nuyu wante ak mom rek waxtaanal ak moom ah mbokk na nga def yow noo tudd Ousmane Ba Ousmane Ba Ousmane da nga ñëw teeru Halifa Sallah iya. ok ah Ousmane Ba luñ doon waxtaan fii mooy ah, ne kaddu yu nit ñi waxoon ne Halifa wax na Gambia dafa ah, am régime change way système bi change ba yo yow lan nga am pour wax suñ kat man fu nekk nii man gan si dëkk bi man dama ñëw rek def community ok jël Halifa as far as anything going I don't have any comments. Okay, but uh, I understand your point. Like you said, uh, you are a stranger, but I know you are a party sympathizer of PDOIS. Can you tell us your whole impression about PDOIS? Why do you choose PDOIS as a political party that you want to support? Well, for now, I think I would just stay neutral. Okay. Okay. You want to be neutral, but you come to welcome Halifa Salah. Okay. Thank you very much uh, for talking to uh, Gambia Talent. It's wow. a pleasure. mom, mom, waaw te moom is like uh, dafa mel ni community waaw community worker la mm-hmm. foog naa am na project yoo xam ne uh, bugga na koo liggéey ak Halifa mu ne moom waxaa mbiru sori parce que moom uh, daanaka gan la dafa bugg a waaye ñëw na pour teeru Halifa Sallah kon lii moo nekk loo xam ne waaye xaw ma ndax Sidia Jatta ko de depuis bu waaw gisaaguñ Sidia Alaaji waaw te loolu am na solo lool suñ ko mun a waxtaan moom xaw ma ndax dafa tukki a ah, dafa mel ni de ah, gisuñ ko waaye tamit ah, Ramatulaay war nañoo mun seet ndax dinañ gis fii nii benn doy National Assembly member bu ko defee tamit. ñu jéem a waxtaan ak moom waxtaan ak ko defee ñoom tamit nañu mun a leeral yéen yi. Hmm. waaw ni ko alaaji waxee rek ba léegi rek gis ngeen fans yi fans yaa ngi nii ambiance baa ngi góowoon ngi taxaw ci airport bi ñu ngi xaar pour plane bi laan pour ñu Halifa Sallah génn si nit yaa ngi taxaw nag journaliste yaa ngi taxaw gis ngeen ne comme soldier yi sécurité bi ñu ngi def seen liggéey nu mu waree pour benn jafe bu mu am benn yàqute yàqute bu mu fi am Gambia suñu réew la ñun ñoo ko bokka amut amut PDOIS amut UDP amut doy amut dara Gambia ñun ñoo ko moom comme niñ ko dewee saa yu nekk rek ñun ñoo ko mun a defar réew bi suñu réew la kenn moomut ko Wow, political party kenn moomul ko ñun doomi gambien yi ñoo ko moom soo ñu taraay rek ñu defar suñ réew mi comme noonu laa ko dee waxee right now ni gis ngeen supporters yi ñu ngi sabar ñu ngi areñ ñu a ngi taxaw di xaar Halifa génn si rek pour ñu mun koo yóbbu nekk ni ñëpp a ngi féete ñëpp ngi sawar ambiance baa ngi bari population moto yuy génn si dafa mel ni léegi tey Halifa Sallah egsi ni ñu leen ko waxee rek yéen Gambian Promotion sa yu nekk rek ñu leen di indi lii nii di leen wax ni ñun askan wi ñoo ñu ñor lépp lu itteel askan bi rek comme ni ñu ko defee woon bi GDC nañ jël si GDC am Mama Kandeh ànd ak moom ñëw tertu tertu ko yóbbu ko Halifa Sallah tamit def the same thing bi mu ñëwee ñu ànd ak rek gis ñu gisal leen comme gars yi naka lañ tertoo seen seen njiitaal ñu toppal leen see gars yi yéen a ngi promotion rek nuñ leen koo defalee saa yu nekk maag suma naataango nag alaaji Koli ñoo fi nekk mu koy wax si kaalaama soose ak ak ngeen fi bu nekk ñun promotion wax naa leen ne nekkaluñ fi kenn ñun askan baa ñu ñor nekkaluñ fi benn parti nekkaluñ fi kenn képp ku ñu fu ñu rek dinañ la ko yu lépp luy soxal askan bi lepp luy demal askan bi kanam rek ci lool la ñuy dox ba légui rek ñu ngi fi taxaw di xaar Halifa Sala ambiance ba ngay dem fim nekk nii gars ngi arrange sen supporters yi pour ñu em place bir Khalifa Sallah su ñëwee mun wax ak journaliste yi ba paré doog a ñu yóbbu ko si doy office bi mu waxtaan ak fan sami loolu yëpp dinañ leen ko indil incha allah su soobee yàlla dinañ leen ko indil di lépp lu fi dinañ leen ko indil pour ngeen gis ko. audience, take the audience yi comme ni leen ko waxee rek ñoo takam ab soldat yi ñoo contrôle fii nii ñu bàyyi ñu dugga nii sax nekku ne ñu bari lañ fi bàyyi ñu dugga comme fiw journaliste rek lañ bàyyi ñu dugga fii nii su ko defee ñu mën a génnee luy xew alaaji ah, ah, loolu la ah, Ramatulaay dafa mel rek di doon am waxtaan mm-hmm. dafa mel ni xalifa flight time bi dafa xala am dilem flight bi ah, ñëwut ba léegi so fu mu nekk nii nag ah, supporters yi ñu ngi xaar pour mun a xam ah, Halifa ban time la war a ñëw waaye am na délai parce que time bu mu waroon a àggal fii waaw waaw loolu la sax gannaaw buñ defee suñ gestu bu gàtt tuuti alaaji comme ni nga ko waxee nga dem lijanti rek nga ñëw gars yi flight bi dafa am délai fi mu nii yow ban lii la la gars yi wax ne flight bi kañ la mu. waaw fu mu nekk nii gars yi joxuñu specific time luñ la wax mooy ne ah, flight bi dafa am delay. Hmm. kon fu mu nekk nii moom ñun kay ñu ngi nii fii nii lépp loo xam ne mu ngi xew fii nii ah, dinañ ko wan ñi ñoo xam ne. waaw loolu la sax because gars yi waxoon ne foo la indi. Foolaay Halifa Sallah di laan waaw nit yi nag ñëw nañ fi boo mel ñu ngi taxaw gis ngeen ko saa ngi taxaw ñëpp a taxaw di xaar Halifa Sallah waaye fulaat bi comme ni nga ko waxee moo am di la yan waaw alaaji ko li loolu laa doon wax rek bala ngaa ñëw ma ne ko ñun Gambian Talents Promotion comme ni ma leen ko di waxee saay yu nekk rek askan baa ñu ñor ñu nekkaluñ fi benn parti lépp lu askan bi soxal askan bi rek ci loolu la ñuy toppa last week gisoon nañ ne euh, Mama Kandeh bu jógee ñëwoon nañ support si ko ànd ak moom gunge ko wan askan bi li fi xew kii tamit ñëw rek ñu ñëw fii tamit ànd ak gars yi doy yi ñëw rek ñu jël si seen njiit comme ni ko dee gars yi di waxee rek nga wax ko ci soose waaw a ah, walem ramatula o ko mayata bakele parce que a yamin fo dron gambia talent la lodu la mu ñina di ka ka yitandiro ke anen ka karandirol ke a ah, kool dol la min yalon ko mo dol me lon koto hmm. a ah, manke kuti mi yalon ko sa fo ko gambia talent itol kañun le support e be kañun support do ko le be journaliste ya be wala feŋo fe mi ye lon ka a ɓe keerin banko ni to a ñanta ka yitandi mool la ndu ye min fo wole ɓe keerin kabiri mama nde fanan nata al nata le ino kananan pour ka kofre ñin ke woto ni halifa salla fanan tamata par ce que cibarol ñin redi ah. bu dal belle to gambia ko hale salla ñanta nala mol nyanta fitte la wala tanga fo e ko journaliste wol baade journaliste wol fanan bi janne min ya lon ko dol be kan na tala ko kanna moy khalifa la abe ko mol dol min fala gambe non munen ko wol dol te fana afana min solo akara tamo dra min to fana wo be ganyi yakaro fana solo ko woto gambe talen ni be yin do ko la ko le mi ya lon ko anyantale ni ma ke anyantale ni ya ke fana anyantale woto wala nyanta kala kuti mi ya lon ko gambe talen be minna do ko kende balem kayitandirol ke molla min ya lon ko wol fana mantra gambe jam dol be bantalol ɗo joni fana mbi joyi wol man nano e malo min ɓe keeri heya poto ɗo woto dow ku kende ba wala ɓe keeri ramatulaji waaw alaaji doo ko kende baa wala ba kéerin comme ni ñu ko waxee woon aliya ron rek bëgg naa gis benn député bi nga xamante ne doy lam nekka ñu waxtaan ak moom rek laaj ko naka la gisee yëf yi nii. loolu tamit dina am solo. waaw kon Ramatulaye lu ñoo def mooy ne. comme que dañu war a jege. waaw comme que Halifa ñëwagut ñu jege fële. ñu waxtaan ak nit yi. set, Newsset, Magalhães Clemente. fan lañ nekk ah gars yaa a wane député yi dañ dem si tenda bakam bi workshop bi waaw gars yi foofu lañ nekk ñoom Sidia Jatta fa la nekk ak ñoom Ousmane ñoom ñëpp fa lañ nekk nara o workshop o ñala attendama bara hanni wo trop a maɗone a pio as a ira bara maɗol fana ko ɗemle meɗen maɗol fenana ka ɗemle onne wol ɓel fana saka ta sotono amna amna ñoo xam ne tabi ñoo xam ne yit lañ try Latrikunda, yes, Latrikunda constituency, Momodo Kecho, UDP, APRC. Ahmed Yage, Yagsi Kamitale Promotion. Yo, doon nga koo xam ne taxawal nga pour jéemala am place député Latrikunda. Waaye yaa ngi ni tey ñëw nga pour ngeen seen njiit bi Halifa Sallah. Loolu am pour Gambien bi. Waaw tey Gambien si dama ne woon tey dañ kontaan fii de am spécial bés la am. so ñu ngi kontaan di teeru suñu président bi tey muy jógee si diaspora bi am na fi mu waxtaanee Gambian nekk nga xam ne ñu ko invité pour wax ak ñoom fekkee ak seen ñoom idée si affaire collection bi ak taxawaayam si a te ñoo di ko teeru tey si si te kontaan laa si def suñu fan am pour waa Gambia kontaan ñun ñu ngi toog tey di ko xaar mu wàcc si flight bi yóbbu ak big ambiance tey président bi tey yóbbu ko ba affaire parti ñu ne tey ñun ñu ngi si gànnaawam si lu nekk. Ameth Diakha yéen mi xam ne yéen fii di laay wax ji bari wax ji bari na ah, Halifa Sallah demantoo bi. waaw Halifa Sallah wax na ne Gambe ah, dañ jël ko jiw ceeñ. waaye système bi ah, ceeñu. yéen mi xam ne yéen yéen yéen a ngi liggéey ak DIS. waaw yow lan nga am waa tamit leeral nit ñi si wax. waaw loolu li ma si am bu baax rek mooy comme eh, rythme change su amee te système bi change dafa mel ni kon da nga raas si kaw di raas loolu si biir comme néeg bi nga bale kër gi bale loo biir néeg loolu système bi su fekkeeku dafa mel ni kon système bi fi ne dañoo bi dafa foom eh, bi dafa mel ni kon système boobu change ba léegi suñ koy suñ njiit yi dañ gisee kon ba léegi change bi amul bi ak ni ni mu eh, bi ak fi weesu li jëm si yëpp ni mu doon mel mooy ne dinoo jëriñu waaye dinoo jëriñ système système jéem bi nag mooy dangaa defar si biir géej gi raxas si biir defar biir néeg gi comme defar li nga xam ne loo xam ne defar wàllum doxal na si wàllum loi si wàllum éducation wàllum transport wàllum infrastructure yëpp dañu war a defar lewaat c'est-à-dire fresh bi lii mooy système jéem ba léegi lii la ñu amee kon doxalin bi dafa yomb démocratie bi dafa teguwaat si kon ba léegi kon dañoo war a kon Gambie am na jéem bi biñ laaj waaw waaye régime jéem nekk ci système bi li mu doon doxee nekkaat fa kon daal dafa mel ni kon jéem yu bëriwul. ndax PDOIS PDOIS doon la parti boo xam ne seen tribal parti. déedéet PDOIS ñu ne mosu ñu am luy tribal parti. ko foofee Samba si li rëcc soog jóg yi Sidi Diatta la Socé la Aliouma Sarr Olof la Sam Sarr ñoom ñoo pioneer ñun mosu ñu am affaire yu traite ci projet bi bi bi time bi ba ren di APRC time ba tey baro de ñu di mën a parti boo xam ne ñun ñu ngi lay xalaat di si ñun yaa mooy ñëpp si ñun lañ nekk si si campagne bi si présidentielle bi ñun xamuñ ñuy traite ñun ben yebera kamele kita ba ni tali fe ala ja hayo ko ngon ko a ko ngan ne a waaye tey yow su dee yaa ngi gardé nag sa am sori ah si palais waaw lan nga am loo xam ne loolu da nga gardé soxla naay lan nga soxla loolu da nga gardé soxla. waaw waaw waaw su ma demee si biir liggéey loolu laay presse moom système kii bi am boo demee fay moom su ma loolu dafaa nekk am loolu dinaa presse moom système kii bi moom loolu la ñuy jàpp ni ma nekkee fu njëkk ak ni ma nekkee woon dañ ko war a wécci su nekk kii jiite rek lañ war a wécci soo wéccee jiit bi wécci mënoo toxal ak ñiy toxal su ma demee si ma taxawoo foofu mooy ñu ci gis nañ système bi ni ma la ko waxee système bi change na wécci leen si kaw exécutif bi nañ wécci structure si li nga xam ne ñoo nekk ñoo ko ñoo nekk on di exécutif ñëw ba si comme other positions like institution si institutional change système change exécutif change bi yëpp dañoo gis ne yëpp dafa ñu ànd ak système bi nga xam ne léegi kon damay jëlaat fresh démocratic part boo xam ne dafa ko te former government woon time ci war ko te ak GPRT government time dañ ñu gis ne kon système bi ñoo

si digg bi mooy si si kër gi dama ko misaale ne moom dafa si waañ bi fi ñoo toogee luwaay bu defaraat luwaay yu baax yi luwaay yi fa fekkoon yu baaxul ñu wécciwaat leen su amee yu ees yu indi na ñu indiwaat leen li la tax moom moom ñoom bi ñooy jeex exécutif moom mu dem si législature a si government booy mooy ñu defaree luwaay ñu baax yi fa nekkoon yi ñu wécci leen yi ees kon léegi comme système bi dina mën a correct parce que exécutif bi dina am yoon bi ñoo ne xaala yoon bi parce que bi boobu dañoo doxee ñun boobu koy alaaji bëgg naa nga oo kii rek nga waxtaan ak Mar Dem bu ngi fii tam ci génn woon ah, Mar Dem waaw from ah, Bansan waaw Omar Dem ah, moom moo taxawaloon moo taxawaloon waaw man maa ngi tudd Omar Dem taxawoon bi ñooy ok ah Omar tey ñu ngi nii fii nii ah ñëw pour teeru Halifa Sallah yéen ñu xam ne ah yéen a nekk di ànd ah, ah, am pour waa Gambien fii. li um, ma

Eh, di Gambia fi ñu jógee fan lañ toll ak fan lañ kontaan nañ ci loolu ndax ñun tamit mobiliser suñu bopp ñu ñëw ko faydal ko te bu amee fayda baax na yow tamit ñoo woon ko fayda nga xam ne ñëw ko ah, si kàddu yooyu noonu tamit indi na fi wax bu bari ne Hanifa mu ne ah, taxoon na sax ba Gambia ko xamee waaye comme ni ma ko waxoon rek ngeen fi xam ne naa ngi ànd ak ñi waa yow tamit naa am leeral yoo xam ne am nga nga leeral askan bi si kàddu yooyu noonu yu Halifa Sallah loolu wax dëgg yàlla nit ñi xanaa ñàkk a dégg laka moo leen waaye loolu jarutoon coow bu bari Gambian si dañ ne woon ne Yaya Jammeh soxla nañ mu jógee fi bu dee muus moo fay toog na Yaya dem parti yi mobiliser seen bopp organiser seen bopp pour di Yaya di demee daa was nothing teral nañ ko pour indi wecceeku bi nga xam ne moom lañ soxla pour réew mi mu jëm ni mu meloon waaye li nekkoon ak di ëpp moos agenda mooy Yaya dem dag leen ci liggéey boobu yàlla def na def nañ ko ba yàlla def na yaayaa dem des na léegi the second phase of this struggle that is to bring about system change boobu is a fact is real système bi dafa war a change you don't need to change one samba for one party nga allow li nekkoon fii mu nekk fi loolu wàññi loolu constitution bi waaw li mu doon doxee si réew ci jamono yaaya bi nga xam ne ñun ñu ngi doon jooyee ne amuñ suñu rights amuñ suñu démocratie di economic policies yi fi nekkoon si jamono yaaya ñu doon joytu jafe-jafe yi yooyu ñoo nekk bi dëgg dem na waaye di economic policy ba tey ñun dégguñ ne ceeñ nañ economic policy bi bi nga xam ne moom lañ daan doxee moom soxla na pour ci pour réew mi économie bi mën a doon fii donc ñu soxla soxla nañ gis ne constitution bi buntu yi nga xam ne def ñu xañoon fii ak ñu génnee ko ci réew mi dëgëraat suñu affaire moment suñu yow nga gis ni soo permis ci objectif boobu soxla nañu suñu économie war na dund nit ñi war nañoo nekk ay souverain bi te boobu suñu amul luwaa yu mel noonu dafa mel ni loolu du am te loolu bu amutee kon yaayaa moo dem li fi nekkoon loolu kenn mënu ko daal ci ci àddina. li nga waxoon tamit am na solo waaye nit ñi dañoo wax ne. système change boobu noonu comme li ma waxoon Ameth rek fooguloo woon ne Halifa Sallah bu jëloon place doon jàppale nguur bi bu ko defee bi gën a am. waaw dafa mel ni euh, comme li ma la wax rek nit ñi wax ji daf day xaw a jafe ci ñoom pour ñu understand Halifa Sallah bu nekkoon cabinet ministre dafay nekk ak moromi cabinet ministre amul benn doole ci ñoom. mënul leen def loolu lu leen neex dafa nekk ak un individual cabinet ministre lay dal di nekk du am doole pour xelal kenn ne nii ngay def sa buntu ministre yi xëy na moom ministre yi am after all sax dañu war a xam ne government football la we work as a team so di stratégie bi nga xam ne moom le team bi amee player bi wow rek ngaa soo mënut a filee noonu da ngaa bàyyi tiim lii mooy dëgg government tamit nii la moo doxee Halifa Sallah mënu faa nekk ah. moto mu am time kii dawalee ko di bugg a demee nii baar bi kii bugg a demee nii baar bi moto bi day kaw so ah, Halifa Sallah su ko nekkoon tamit la mënoon na def mooy stratégie ak agenda bi nga xamne mom la government bi am ci boobu la mëna liggéey bu ko mun kon ñàkk faa liggéey mom la mëna a def jërëjëf bi sa xaal yooyu rek thank you very much alaaji one people one Gambia one Gambia one naka waaw uh, one nation uh, ñoo ki dega uh, mo rawat lay abe min fokan rom wala ñinti ko ñi ni ka rol ñi yaama ko ibe caring moolu ye ñiŋ fo ko muŋ ne ye a tena halifa ate ko régime change le keta bari système o maŋ change donc halifa maŋ place o taa woto naata num komin ko haalay fay place o tan tumanda fanan sa masa kunda fana makoye nole ɗum yin kuwol dow lande dola woto naɓe laare goñama ñin ka wole fobo ino mi ata komin ko haalay fasala a keta cabinet ministre ɗi woto iɓajalale ko e kam min fokoto separation of power wolem ako fanan ate right fotola no sa involve into another ministre ɗi bare haalay fasala ko hani ate laftata ke député le ɗi député kumoto wolem dulatimiyalonko ah, loi gambela loi penkol aka dana wolɓe warat nate tuwate la fakata député ti pour mi mbatinala ko a luwal min menun jang la min fonun ko yajamela luwal mam betiyan eto sekke molɓe min yalonko eɓe o luwal min falita woto to la jero to tole wala je ko han foko sañe a keke mambo jaɓato kumantata fokango kuwol min to pour mi mbatinala a falindiro ñin fana e ke par ce que gambeno lafta walla comme ko tet yim teñ yajamme tatale par sañ yajamme pele feŋol dool min bula jam min ye a lon ko a maŋ gammeno nafa wol mu kuwol dool le ti min ye a ko pelesol masakundañin fana ñanta loola woto ñiŋ be wo le kuwol dool foka ko wo len ti min ye ko dool baa fokan ko a le bare wol foka waaw solo comme ko waaji wax mu ne boo gisee Halifa Sallah jëlut ministre comme ni nga ko waxee separation of power dafa am te su nekkee ministre yu bari du si mun a dugal laa meñam si area rek la moo wax looloo tax mu ne moom du nekk ministre dafa nekk si député bureau bi si national assemblée bi fi nga xamante ne foofu la ñoo defaree lu waa réew mi ndax mu am kaddu ci réew mi ndaxte comme nu ko gars yi waxee Halifa Gambia rek a ko noonu la gars yi wax te du te gis nañ ko gars loolu la xëy alhamdulilah waaw ah nit ñi ñoo ko wax like si gis nga kii mu ngi sol si saat bi one Gambia one people one nation Gambia bi loolu lañ fi am rek xalaat ji mooy tribalisme bi c'est notre tribalisme amuñ benn xeet fii comme niñ ko waxee làkk nañ fi joolaa làkk nañ fi pël làkk nañ fi njaago làkk nañ fi làkk yëpp foo laa wane ne Gambia bi ñun ñëpp benn lañ xalaat yi xam naa ne plane bi nag comme ni ko gars yi waxee flight bi dafa delay waaye léegi tey xam naa mu war a egg si léegi rek ñu ngi taxaw fii si crowd bi gis ngeen ko ñi yaa ngi ñi si sabari ñi yaa ngi def seen def ñu ngi taxaw rek di xaar Halifa Sallah waaw waaw waaw dafa mel ne rek taxawaay bi de xal naa yàgg tuuti waaw yeneen parti moom ñu ngi nii ñoom teg nañ seen sabar tax waaye xam naa ne bu soobee yàlla nag ah Halifa Sallah dina ñëw dina ñëw bu soobee yàlla dina ñëw kon ñu ngi nii fii nii ah, di wax ñu nekk di seetaan ah, Gambia Talent Promotion ne ñu ngi nii fii di bañ di seetaan xale ah, yaa ko ba léegi di xaar Halifa Sallah xam ne moom la la supporters yi génn pour ñëw teeru ko fii nii ah, si airport bi. waaw comme ni ma ko doon waxee rek Gambian Talents Promotion yow askan bi moo ñu ñor te askan bi lañ fi nekk lépp lu soxal askan bi rek dinañ ko wane dinañ ko génnee moo tax rek ñu ñëwoon fii tey si airport bi rek maag suma naataango di alaaji Koli ñëwoon fi rek pour tepp si Halifa Sallah rek waaye xam naa alaaji dinañ jël bi rek. nañ jéem a jël break ba ci kanam. waaw parce que flight waaw bi ñëwaat waaw ñu waagul ñu jël break ba ci kanam rek demee ne le Halifa su ñëwee rek ñu commencé waat liggéey bi.